nous au Sénégal surtout la jeunesse ma leen di fàttali bu ni Sénégal gi réewi Afrique yépp ci lañ war référé wu intention ci comportement ci attitude ak façon de parler ak façon de faire jeunesse bi laay fatil loolu bu nangu mukk mukk yenen jeunesse yenen yeneen yab ko nangu bu ko nangu problème buy nuru ben problème bu amul solution amul problème bo gis rek amna solution ya ko gisul fi tol nak Serigne Touba mo yoré solution problème yépp moko yoré <laughs> waaw lotax motax bis bi yiwu kessé la wax deug yalla Serigne Touba luddul bis bi itam moko wax ila aidu kon bis yépp ci lañu waaw fi tol limi wax fi ci bisu alxamis bi yawmil